je pense que dañuy dugg directement nag ci deuxième partie waxtaan bi nga xamante ne bii c'est l'affaire de Mame Wallo Ngom euh, en attendant donc le 12 décembre jataay yi hmm, ak plateau yi donc mu euh, yi alaaji c'est vrai que nit ñi ñi ñuy waxee bon mbi coog mbaaloo la fii ba suba hmm. donc voilà dañuy ñëw ci people jeexale ko jataay bi de nga xamante ne bii tey euh, people yaakaar naa ne benn poñ rek lañuy ñuy waxtaanee mm, muy affaire wu benn mbaa ñaara ah, benn di affaire u Sidi Diop Wally Seck njàpp <laughs> voilà gis nga njàpp bi mu débarqué keroog ci soirée Wally Seck bi daf ko ñaan oto mm, ba mu feccee ba pare Wally taral ko may ko xaalis donte moom danseur u Sidi Diop la mu ne Wally may ma oto Mame Waly taalal sa micro donc aw ma oto dama bëgg nga may ma oto loolu nag li ne ko ok mais xam naa ne Waly bëggul woon a wax bëggul woon a prononcer publiquement ne euh, ko conseiller ko yedd ko ne ko doxalal rek yaa ngi ci lu leer yaa ngi ci lu leer nañ ñi dama ko na mu ko tontoo nit ñi jàpp nañ ne humiliation la mais quand même du humiliation parce que daf ko conseiller rek yedd ko xam nga nit moom boo nekkee ci lu leer moom jarul ngay ñaan mm. waaw ndax tôt nga am li nga bëgg euh, par la suite nag donc ci la ko njàpp ne man Sidi Diop mooy sama papa ak yow ñaari papa rek la am muy yow ak Sidi Diop mais wax jooju neexul Sidi Diop ah dafa mel ni génn na démentir ne moom xam nga benn papa la donc bu ko kenn wooweeti sama doom ah, waaw. waaw Sidi Diop côté boobu dafa xam juum. maam yow rek la ñuy déglu people. parce que ñoom ñaar ñoo bokk lañuy ñuy liggéey. Hmm. nit ki nga bokkal li ngay liggéey mu mag la foofu. Hmm. munoo bañ mu nekk sa papa. Hmm. boo ko bañee da ngay def la neex da ngay def lu la neex rek du dëgg. waaw ah, lu tax munoo ko bañ mais papa ci ban ci ban côté. papa ci ban côté. xam nga des fois da gis koo xam ne man dama gis xale ne ko sama doom. Hmm. yow nga gis koo xamante ne xale la nga ne ko sama doom. mais waaye waaye Sidi Diop egg ñu fa écartage boobu amul. je crois en kay waale Sidi Diop waale mooy papam da koy da koy nangu sax fa foos papam la. non xam nga. papaam ci ban contexte. yow par <laughs> force ngay di teg par force. <laughs> ah bu ne ko force lu mu nekk dafa mën a jur Sidi Diop. barke sëñ Tuubaa mën na koo jur. non bul waat sëñ mën na ko jur. ah waaw nu mu mën a jure Sidi Diop <laughs> nangu day yëngu mbali duma. dafa war a nangu rek papaam la macha allah papaam la njàpp tamit def na geste rek la def waaye dafa fekk ñuy waxi oto oto yi wax wax ji raafagut miisaguñ ko. yaa ngi dégg <laughs> mu bëgg a ñëw andiwaat ay waxi oto. digéré guñ ko waaw boo wax dëgg yàlla ndaxte doy na wax daal waaye daal xam naa dina may oto mais du jamono ji ci li ma yaakaar bàkki sëñ Tuubaa parce que yow yaa ngi naqarlu eggale goo deux heures trois jours njàpp li mu def rek la war a def macha allah. blâmé woo ko. waaw non non li mu def rek la war a def te loxo otoom bu jaaree ci Wally Seck da koy am. mais période bi la quoi. mais période bi la. yow waxi oto ya mu ngi dëkk ci dëkk bi tulleeg maale problème guddi problème bëccëg version bu dee di dikk ba pare nag waale am ci ndam waaye nag xolam neexu ci du dëgg doy ni waar daal lii kenn mës koo gis. mais nag d'accord ma ci euh, El Hadj loolu laay bàyyi sax yow yow laay bàyyi man du ma d'accord ak ñàkk a d'accord ci li mu wax nii Wally Seck parfois papaam papaam la nekk si di jëm. waaw non xam nga. moom contexte bi ñu ko tegee mooy ay par force rek. waa non xam nga man la par force la xam nga non damay expliquer dañuy dañuy waxtaan. Mm. Mm, Wally mënta nekk papaay mm. li tax mënta nekk sii di Diop. Mm-hmm. mooy mënu ko jur ci age mm-hmm. xam nga papa booy wax nit sama doom la. mënu ko jur ci âge waaye ci ci liñ nekk. moo ci papaam. non loolu man du ma ci ñëw. loolu nag man ci laay am na ci ñoo xam ne jàpp nañ ni Sidi Diop moo ci papaay Wally. déedéet. non xam nga loolu c'est jugement personnel moom na a doog xam nga dafay am loo xam c'est la. Ah. yow euh, man je ne défends pas ni Sidi Diop damay wax parce que li ma la wax laay wax. Mhm. nit jiitu na nit ci mbir nit ki ñëw raw ko. waaye ñi mu fekk ci musique bi raw euh, te romb leen ci musique bari na. Mhm. jiitu ne taxul nga. waaye à part Youssou Ndour moo raw ci musique. à part Youssou Ndour. boo nee Youssou Ndour rek Wally Seck nga ciy teg. non man waxuma ci contexte sax moo raw ci musique wala rawul ci musique. Mhm. contexte pàppa bi ñu nekkoon lay wax. waaye dafa wax ni si euh, euh, Sidi Diop daf ne kenn du papaam du doomu kenn bu ko neexee am na ci droit. xanaa moom tey la ko bañ. waaw bàyyi ma développé. xam nga contexte papa. lenn mooy tax nit di wax nit kii sama doom la hmm. xam nga contexte yi nit war mu ne nekk papa yi nit dafa bari hmm. mais man pour man waale bu dee wax ne Sidi Diop sama doom la c'est parce que doo ko wax ci contexte la euh, oh non non non non man man pour man waale bu demee bay wax ne Sidi Diop sama fils la hmm. c'est parce que langage jeunesse la ak rak foofu laa koy waxee. man na ko rak Sidi sama fiis la. waa bamba mii tey jii mën na nit mën na ma nit mu tontuwee moo baaxul Alaaji Mbaye. waaw bàyyi ma daani maam waalo. ah nit mun na ma waxee ak fi mu waxee bokkul tamit. nit mu fi waale waxee da koy dégg day nangoo dégg fi waale waxee. waaw da bàyyi ma daa te nit ñi jambit nit ñëpp tamit dégg nañ fi waali waxee ne yow sama rak nga waa mais gëm naa waaw mais d'accord xam nga loolu mun naa d'accord. samay doom ngeen loolu fan xam nga bamba mii mun na nit mun na taxaw léegi dama bamba de bamba yow bamba non yaa bamba ni mu demee man la non bamba sama fils la. xam nga context boobu bu fekkee fa la ko waayal te y a rien de méchant mais Siri Diop moom aussi. bu fekkee da ko jële ci beneen angle. Sidi daal damaa yaakaar dafa bëgg bës di décembre bi des ci décembre bi. non Sidi ñu naan ko waaye non non dafa ndànk non dafa ndànk mamaalo. loolu laa gis mamaalo. Hmm. Sidi am na bës moom am na ko ba pare non dañuy waxtaan Sidi am am na bës ba pare. en tout cas daal booy di jëlanteel mbagg da nga jëlanteel mbagg koo xamante yéen a yem doole koo yemalul doole mënoo di jëlanteeg moom mbagg yaa ngi dégg koo xamante ne bu ngeen am bu ko sa morom ku nekk bu amee naqar nga ñëw dem kon bu sa yow yaay sama doom war ngaa mën a nangu loolu daal ah, moom tam bu ne xam nga dafa am loo yow sa doom laa war ngaa war a mën a nangu loolu mais ñoom seen jaalante beeg seen demlante bi lan la nit du wax ba pare weddi boppam suñ jural dañ koy forcer tamit non non may ma tuuti nit du wax ba pare weddi boppam forcer ko de waaye da ko xamal ne ko maay sa papa mu nangu da ko war a nangu nag mais ci ban contexte la nekk papa waaw ci fii mais lu tax mu war koo nangu moo ko ki bëggul nga doon mais bu ko ki bëggul nga doon papa mais bu doo mënoo doon papaam loolu force la mais xanaa yaa ko bëgg a fortal. maam waa maam waalo ñibbi nga. non loolu sax wuy ma Bamba. dafa am loo xamante ni xam moom du wax ba pare weddi boppam. Mm-hmm. parce que mënoo taxaw fii léegi ne musique sénégalaise gannaaw euh, Youssou Ndour Wally Seck la. waaw waaye léegi. koo fi tuddaat. waaw bàyyi ma daaneel. boo nee Youssou Ndour ne Wally Seck koy tuddaat ku ñuy déglu. ak ku ñuy bàyyi xel ah waaw man de Waly Seck daal en tout cas. non xam nga yow sa waxtaan du ne. Waly Seck non dañuy waxtaan boo nee Waly Seck Youssou Ndour rek nga ciy teg. lu tax Ameth Thiou bi mu fi waxee ban Waly baayam la am ñoom mbay si ñëpp génn bañ ko ne loolu d'accord ñu ci. mën ta nekk papaam. Ah, moom Waly tamit mën na nekk papaam moom Mbaye Sidi Diop. rakam est-ce que différence d'âge yu Waly Seck ak Ameth Thiou defal naa est-ce que différence non defal naa kan ak kan bokkuñu âge. Ameth moom ak moom ak Waly waaw. waaw si wa. Sidi moo Wally Seck moo ko mag. est-ce que différence d'âge yu Ameth ci ëppul différence d'âge yu Wally ak Sidi Diop. yéen da ngeen a baax. <laughs> yéen non dañuy waxtaan xam nga dañuy waxtaan. Mm. Sidi peut-être que moom angle bi mu ko jëlee ak fi Wally waxee mun na bañ a bokk su fekkee Wally daf ko wax. parce que par amitier par exemple Sidi sama fils la sama doom la yaa rien de méchant mais di bu ko gisee ci beneen angle aussi na xam ne Wally wax gi mu ko wax moom daf ko wax uniquement pour. waxewu ko dara en tout njàpp moom def na geste bu rafet parce que li ma dégg muy wax. njàpp moom rek. Ah, moom man luy defar rek ci laay dox. moom njàpp moom wax dëgg yàlla li mu def. mënuñu bërki dem mënuñu bërki dem waali jóge ci problème problème oto ak ak ak yéen yaa ngi dégg ak seen waa groupe yaa ngi dégg waa groupe ban <laughs> yaa ngi dégg man groupe ah, ban groupe <laughs> na la ya non man maa ngi loolu yëpp yéen a koy indi ci bi <laughs> non bëri na rek ngeen fi am. bëri na ngeen non mënut a ci problème oto xol bi jeex tàkk mu bëgg ma mayewaat oto ci sensé loolu mënul nekk barke Serigne Touba fi indi ah ki indi problème oto bi lor na ñëpp. barke Allah de façon loolu pour man lii du. bamba bamba pour man lii waay waay moom daan naan la. pour man concurrence du lii. barke Serigne Touba rivalité du lii xam nga. concurrence booy rivalité da nga rivalité sa morom. bàyyil sa morom. si waaw day xam nga euh, euh, Mame waxtaan boo bëggee mu neex. dañuy dégloonte d'abord da nga koy ci ay da nga koy teg da nga koy bañ a teg ci. ci far far teg ko ci. Euh, ñoom ñaar ñëpp laa toogal de. waaw dañuy waxtaan dañuy waxtaan. xam nga dañuy waxtaan. Sidy Diop quoi qu'on puisse dire xam ne c'est quelqu'un boo xamante ni dafa progressé ci musique yaa ngi may dégg bu baax Sidy li Waly def ci musique dafa ko ci musique Sidy mi ngi feesal bois de nuit nangu nga wala nangu. Waly tam il a du mérite ba may ba rek moo expliqué la Waly Seck. Mhm. Youssou Ndour commencé musique début année deux mille dix yi. ñuy ñu koy tudd di tudd Wally Seck mi nga xam 2009 la ñëw ci musique. yàlla ko defal liggéey ndayam. waaw léegi Sidi bu ñu demee nag ba di ko tëkkaleeg Sidi Sidi il a du mérite mérite weesuwul ñu lay tudd di tudd Youssou Ndour. Mm-hmm. waaye mérite weesuwul ñuy tudd Wally Seck di la tudd. dafa am loo xamante ni. waaye moom tam na liggéey ba yem fi Wally yem. mais liggéey moo liggéey non dañuy waxtaan xam nga. booy diranteel mbagg da nga diranteel mbagg koo yemal doole. Sénégal dañoo rafle ay waykat. non dama bëgg nga déglu ma. non Sénégal ay waykat kese fi ne. waaw non waxtaan Sénégal dañoo rafle ay waykat xamul dama ne dañoo rafle ay waykat Sénégal ba muy way ba muy am ay waykat dëgg ñoom Alioune Mbaye Nder ñii ak Fallou ñoo nekkoon Jeunes Talents yi kon Sénégal dañoo rafle ay waykat y avait Youssou Ndour Baaba Maal Ismaël Lo Thione Seck Oumar Pène et cetera fu ay Alioune Mbaye Nder nekkee Jeunes Talents ak ñeneen ak ñeneen kon boobu amoon nay waykat talent yooyu nag lañ fi gisatul gis nga dama la bëgg wax expliquer benn affaire mbir mi. nekkul problème de xuloo ci média yi pour am buzz mbir mi mooy dugg studio togg lu neex yekk ko sénégalais yi lekk ko mhm. mais nekkul di buzz que ni dañ koy am ci no parce que da ngay clash nit wala da ngay wax nit wala da ngay génn xuloog nit non non non ñi fi nekkoon démb doon liggéey le problème mooy dañ daan génn ay produits yu baax teg ko euh, sur le marché sénégalais yi cons euh, apprécier ko jënd ko est-ce que yaa ngi may dégg bu baax mais du actuellement nii la ñuy defee buzz kan moo def buzz ku koy wax loolu. ku ko ci mënti def. Ah. dama la bëgg a expliquer. benn loolu da koy wax ak ña koy def. mais ba mais mais mais Mame mais en tout cas fii ku kenn créé fi buzz tamit. kenn. kenn créé mais yow yaa si day créé buzz ci décembre. waaw man maa wax loolu man maa wax loolu. xam nga man dama lay explique benn affaire Mame Wallo Mame Wallo Wally Seck ñëpp ko bëgg. mais musique sénégalaise moom. dégg ne man toogaluma fi waale toogaluma fi Sidi li ma gis rek. ak waali wax ci sensé moom mu tontuwaat ko ci sensé. waali nga fi toogal waaw bu ma neexee sax nag Mariasin. waaw mais dama la bëgg wax benn affaire que ni musique moom munul nekk waali. weer dee demoon waali fay la. <laughs> yaa ngi dégg musique bi mënut nekk waali kese. Mm-hmm. il faut que mu am mais waali bu amul ay concurrence sax ndax dana liggéey. bañ a liggéey. liggéeyee ko egg fi mu egg di. non kon yow déggoo li ma wax. dama ne liggéey liggéey waaye bu amul woon ay concurrent ndax dina liggéey laa la wax. li a liggéey waaye da ngay concurrent ak sa morom ak koo yemal doole. mais Wally day morom waa léegi ma laaj la ne waa léegi Wally day lu tax. dafa liggéey ba egg ci moom. waaw Sidi Diop daa liggéey ba egg si Wally. déedéet. excès bu fa nànk rek. yu non non dañuy waxtaan mu ngi ci yoon nag. dañuy waxtaan Sidi Diop mu ngi ci yoon wu leer. macha allah comme ni ko Marias waxee rek mu ngi ci yoon waaw mu ngi ci yoon leer. waaw d'accord voilà. xam nga dañ dañuy waaye nag na liggéey ba egsi fii waali egsi su ko defee mu doog a mën a di bu waali liggéeyee ba yegg fi ndur Ndour si Sidi Diop liggéey ba yegg fi waali yegg waa kon yàlla baax na yàlla nañ ko te j'espère que ni diggante Youssou Ndour ak waali moo gën a gudd diggante Sidi Diop ak euh, waali mm-hmm. Youssou Ndour cinquante ans de musique la def il a fait ses preuves. te ñu ngi koy tudd di tudd waali ñu ngi koy tudd tudd waali waali Seck ndaanaan la wallaay Seck bu nu demee bay tudd Youssou Ndour la tudd rek ndaanaan nu ko weesu mais dama laa wax ne la foo pas sous-estimer un concurrent. faut pas sous-estimer un adversaire Sidy Diop dafa mën a way. il chante bien nit ku mën a way la. il a du talent. kenn da ko dafa mën a Sénégal dama la wax yoru waaw noonu laa yoru ñuy nopp dof. fii ku fi way lu neex xam nañ ko. ana ñu fi nekkoon démb te mënuñu woon. abal nañ ñu. donc bu rester sur la scène di imposer ba tey am na parce que. il a daal dëgg yàlla man c'est pas un artiste man sama analyse personnelle mooy que ni cinq étoiles la. mooy groupe Sidi Diop. Mhm. dañoo war a toog foofu cinq étoiles. Ramadan toog Ramadan bu loolu amee yii nii di xew nii du xew quoi vraiment. yii nii di xew nii yaa est-ce que yaa gis benn staff Wally Seck. man dem ci feneen man personnellement man yii nii. parce que mënu maa nekk te Wally Seck dafa yaatal moom ku ñëw seenam mu yégal la. nga toog mënu maa nekk nga nga nga bëgg fa tout le may dem ci Wally Seck. Mhm. di di fa di fa fecc di fa ñaan en fait man bu sama kër neexee soxlaaw ma pour dem feneen. non non non non je suis pas d'accord je suis pas d'accord je d'accord je d'accord xamul dañuy waxtaan xamul ndax. man sama nag ñoom dañuy baali nag mais. laa di baali. am na ci waykat yoo xam ne est-ce que seen musique euh, seen seen musique sax nañ ko teg seen kër. nee na coon sekk ni mu waxee da ngay xam ne keroog Sidi ni mu waxee keroog mm-hmm. Sidi ni mu waxee keroog ni ma ko dégloo mu wax mooy que ni pas fier de njàpp. Mm. wala il pas fier de Wally Seck. dafa mel ni daal dafa mel ne njàpp da koo dafa mel ni njàpp da koo manqué. la moom loolu la wane ba tamit dafa mere Wally parce que oh. nee mm-hmm. waa kër Wally dañuy ñëw ci man di ma baal ci mais ku ñëw dama la yëkkati. comme quoi que Wally dafa dafa seetaan naa vidéo donc kon bu yii yëpp buñ ko.